doon loo xam ne ni da koy waaj wala da koy préparé mooy euh, nit kuy fayeku bor te du ko jot waaye su demee nag ba fil xaqiqati dafa am ñoo xam ne dañ ko yoral bor bëgg bu fay leen gis nga nit sa alal bu nekk ci àll bi nga bëgg koo jël te doo ci xuloo doo ci xeex doo ci sonn doo sonal kenn dangay delloo sa bopp ci yàlla nga ñaan-ñaan gi may wax soo ko wér daa 999 fu sa alal nekk yàlla dina la ko indil ku ko yore yàlla dina tàppe xolom ba mu jox la ko te doo ci xuloo doo ci xëccoo doo ci am benn jafe-jafe muy bismillahi arrahmani arrahim am abramu amran fa inna mubrimun am abramu amran fa inna mubrimun muy aaya bu gàtt bu am solo boo xam ne bi euh, su sa alal nekkee ci àll bi nga bëgg ko jot nga di ko def quatre-vingt-dix-neuf euh, neuf cent dafay baax yàlla dina la dimbali ba sa alal ñëw te doo ci am benn tolof tolof am abramu amran fa inna mubrimun beneen bi ci tegu xañ Abdullah nee na dafay gis euh, nee dafay gis ñu woo ko waaye juróom gu góor woo ko jox ko weccit ne ko soo jógee sooy demee ni na jaar ci banque ba ca foofu nag fa la dagge weccitu guddi nag ma fi xeyr an nuqut fi lxulmi faqrun wa diqun shadid wa mushkilatun azimatun min almashakil ñàkk gu tar lay jur loo yaakaar du sotti loo am day dem mooy weccit xaalisu koy daal ci gént moo gën xaalisu weccit la ci des nag xëy daf ñu xaw a échappé waaye dañ koy digal mu jël lu toll la juróom benn fukki dërëm mu def ko ay juróom-juróom mu xëy sabaaxan mu bakkir suba teel mu di ko séddale ay xale su koy def muy jàng alam na sarax bu koy joxe ba ba muy jeex buy dellusi di ñibbisi mu jàng ci yoon wi alqaariatu malqaaria mu nekk luy am solo lool te di ko yombalal mbir yu bëri xayadulaa tafadal jërëjëf oustaz kii nag <clears throat> nee day gént di tuur ndox mhm. Mhm. waaw shukran ya Cheikh Abdoulaye gént di tuur ndox ci gént sa commencement day neex waaye say mujj day bari xat loo dugg commencement bi day baax waaye mujj gi day bari xat ñu jël ki ci ligne bi ñëw salaamaaleykum wa rahmatullah allo soxna si salaam en fait dama bëggoon posé benn euh, gént bu ma géntoon barki dem ci sama doom bu ndaw bu ñaari at mhm. dama ko gént dama doon dama doon dama nekkoon sama néeg nelaw man sama jëkkër ma yeewu suba teel gis ko. mu mhm. nekk mu def taatu neen. Mhm. léegi mel ni ku wéree di comme ñaari at jël benn rasoir dagg xottu taatam yëpp ba pare miir bi yëpp fees dell ak deret. takkal mhm. ak takkal ko deret léegi ma gis loolu rek yuuxu ñëw woo sama jëkkër ma nag moom ñu taxaw di ko xool nag. te ñaari at dong lam te ñun suñu suñu waa kër yi dañu fa bari ñoo xamante ne dañoo ay feebaru bari feebar xel quoi affaire bi jaaxal ma nag. loolu rek laa bëggoon ngeen firil ma. jërëjëf. Allé jërëjëf merci. Euh, dafay laaj doomam boo xam ne dafa xëy rek fekk mu xotti boppam ci ginnaaw yàq yaramam yëpp. Mhm. Euh, daggate ay yaramam ci fànn yu bari. ba mu jural ko xaaj Abdullah dara ju tuuru ju bari loolu nag soo ko gisee ci sa doom bàyyi ko xel ndax du lu gën. allahu alam fan la jëm ci ban côté lay feeñe waaye du lu gën ala sabilil misaal ci gàttal baaxul ci xale bi nañ ko bàyyi xel te di ko ñaanal ñaan gi nag mooy nay def muy tëdd guddi gu nekk mu seet ku jàng alquranul karim mu jàngal ko sóoratu yaasin balaa muy tëdd su ko mënul mu jël xam su naqaaf mu ñaanal ko ci su ko mënul ba mënul ñaar yooyu yëpp nag mu def fanweeri yoon ak ñett wa samaai wa taarix mu nekk xijaaban mastuur wa sitran aziman ala hada tifli aw ala hada alwalad mu nekk luy sàmm xale bi ci dundam ak fu mu mën a nekk waaye du lu gën ci xale bi baaxul su ñu nee du lu gën baaxul rek dañuy tënk ndax al ishaara takfi li man ànqala junju day na borom xel yi baaxul yi dafa bari ay façon waaye comme que dañuy tënk rek eh, mu xam ne du lu gën mu bàyyi ci xel ci fànn yu bari Euh, Hadj Abdallah bismillah. jërëjëf oustaz <clears throat> du ñàkk mu ngi seetaan waaye ngir dalal tuuti xel mi du ñàkk na yéenam dem na ci xëy suba yëkkati dara joxe. waaw su fekkente ne ci wàllu sarax la day génn day génne Hadj Abdallah juróom-ñaari ndab yoo xam ne ceebu yàpp lay doon mu yénnee senegal su fekkente ne bi bu fekkente ne bitim réew la nekk su fekkente ne nekk mi ngi Sénégal mu def ko fii. Euh, mu nekk sarax boo xam ne dafay am solo damay wax naan euh, alquran daf ñuy jàngal ne lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun mun leen ma aman yàlla tànk jëlu leen li gën a baax ci seen alal di ko def ci sama yoon wi moo tax ñu naan sarax boo koy génnee na ko defar ba mu baax su dee ceeb booy togg la togg ko ba mu neex li ci war a dem yëpp dem ci te yàlla tax su dee laaxit defar ko ba nga xam ne ñi koy jëfandikoo dinañ ci yëg seen bopp su dee alal jooy génne it génne ko ba ki nga koy jox dina ci jëfandikoo ba yëg boppam ndax ci yëg boppam googu ci la aaju gu faju nekkee nañ ci bàyyi xel euh, xañ Abdallah tafadal jërëjëf sax ci wàll wi sax boo déggee ne fi mu bokk ci seen njaboot gis na ne ñu bari dañu am jafe-jafe lu jëm ci wàllu xel mhm. ak gént gi ñëw ci doom ji xam nga mu xaw ci mu xaw ko lan nga koy daal di waaw li ma koy digg rek mooy allahu alam tekkiwul ne nag foofu la war a mën a génne ndax tolof tolof àdduna bari na façon jafe-jafe àdduna it bari na façon waaye ku nekk ak sa bos nam lay dikkee waaye comme ko du lu gën ala sabili misaal ci gàttal na def ñaan yooyu ma ko wax ak sarax bi daf ci am solo ndax daf koy dimbali yàlla teg xale bi ci siraatul mustaqim lii nag moo tax ñu naan mhm. gént dafa baax ndax yoo xam ne am na mbir yoo xam ne yàlla dala koy wan avant muy ñëw ñu jël ko ci ligne bi te ñëw salaamaaleykum wa rahmatullah maaleykum salaam. soxna si bismillah. man de dama bëggoon ngeen jàppal na sama gént bi. Mm-hmm. barki démb ci guddi alxames dama gént. Mm-hmm. mu mel ne dama yéeg ci kaw asamaan. Mm-hmm. bi ma yéegee asamaan bi xiin def lu mel ne xiin ba mu yàgg mu def lu mel ne géej ma nekk ci biir ndox mi. lii moo ko naan wuy wuy ku may dimbali. ndox mi bëri bëri bëri. ma xoolee ne wuy ku may dimbali ma gis. Serigne Touba. Mhm. Serigne Touba dugg ci benn valise ne ma pour ma yéeg. Mhm. waa léegi ma yéegee foofu nag laa yeewoo après bi ma xëyee nag di ko nettali suñu kër. Mhm. ma ubbi sama valise bi ma yóbboon kas rajab bi. ma gis bi sama benn mbubb doom bu am photo Serigne Touba. te comme valise bi toll noonu ci la duggoon. waa ma bëgg ngeen jàppale ma si yi ci def nag temps yi passé mën na weer dama géntoon am ay seex. bi ma amee ay seex ba pare nag ba ma gis doom yi ñaari doom yi ñu tëdd après may ma gis garab boo xamante ne dafa fees dell ak ay fruits. Mm-hmm. te léeg damay faral di yéeg ci kaw garab nii garab ay fruits. Mm-hmm. waa benn jour tamit dama géntoon di yéeg mu mel ne mu mel ne tabax ci kaw may yéeg noonu du may yéegee bunt bu ma njëkk jàll gis ay. shukran ala kulli xaal sa sa naati bi bayaani haulaai al axlaam incha allah xaj Abdalaa ñoo déggandoo laaj bi nee na bu njëkk bi dafay gént lool nekk ci kaw asamaan mu jékki-jékki xiin daal di sotti ndox nee na mu bëgg wàcc mu jafe ko la waaye nee na Cheikh Ahmed Bamba la gént moom ko jàppale dimbali ko ba mu wàcc foofu mu nekkoon borom ixyaa i mawlidil Bachir kooku mooy ki nga xam ne kii damay farataal wax ne gis koo yiw la yokkute la borom fa man yuazzi mawlida nabiyina babil huda fa ka shahidin shahida badran bi geyri waham gis Cheikh Ahmad Bamba ci gént nga nekk ci xaal xaalu diq wa shidda xat-xat jafe-jafe yu tar mu génne la ci eh, yiw bu bari la gis ko yiw la saafonteeg moom yiw la jokkalanteeg moom yiw la waxanteeg moom yiw la min jameelu funuun yamul ci yow nit waaye àgg na ci ba ci ijaaba min kulli daawa aaju gu faju ci zahira ak ci baatin muy ru'yatu Cheikh Ahmed Bamba muy la am solo beneen bi xaj Abdallah nee na bari na luy muy gént di gis ay seex gis ay seex ci gént yiw la alal la ju bari ju yaatu donte bokkuñu fu ñuy jóge bu dee alal bu ñëwit wax dëgg yàlla bokkuñu fu ñuy jógee wala bokkuñu jamono bu ñuy dikkee ci nit lii day ñëw ci jamono bi leneen ñëw ci jamono bi mooy gént ñaari seex beneen bi it bari farataal ne di gént ay nekk ci kaw garab wala mu nekk fu kawe euh, nekk ci kaw garab baax na nekk fu kawe it yiw la waaye wax la kulli xaal comme que yëpp yow la dañ koy digal mu jël kaamil alquran bu bees mu seet kuy jàngale daara alquran wala imaam jàkka mu jox ko ko li wasillahi alkarim xaaji abdullah tafaddal jërëjëf oustaz kii nag nee na dafay gént jóge ci kaw di wàcc si suuf mhm. mhm. zalika yakunu bil aks qul naa zalika miraaran almuhimu alxuruj min al asfal ila al ala xayrun min al ala ila al asfal wa sanaati bihi ñu jël ki ci ligne bi salaamaaleykum wa salaam sëñ bi. soxna si ñu lay ziar. ñoo ngi ziar bu baax di leen jaajëfal. bisimilah. Euh, dama amoon euh, ay gént yu ma bëggoon ko ma ko leeralal. Mm-hmm. léegi dama géntul ma tëdd ci benn lal jaaxaan. Mm-hmm. ñu jox ma ñaari ñaari xale ñaari liir. yoo xam dañ mm-hmm. leen solol lu yëre yu bula ay leen. yëre yu ñuy ràbb bula ay leen léegi kenn ku ñëw ma yow lañ ko tuddee mu nekk ay seex. léegi si kaw loolu itam mu mel dañu dugg si benn bis dem dikk yi ma sama taawu yaay bu góor. Mm-hmm. léegi mu gis si benn jigéen si biir di ko tooñ. mais moom dafa mel dafa feeñu ne moom mooy sama jëkkër si génte gi. Mm-hmm. léegi benn jigéen di ko di ko tooñ. Mm-hmm. naan kaan aw ma jabar ma naan kaan doo bàyyi li ngay wax te yaa ngi nii ànd ak sa jabar ñu siy xuloo nag ma sama mag boobu. waaye beneen géntim nag sama doom bu góor bu am juróomi at. daa génte mu dem si toilette yi. Mm-hmm. léegi bi muy jóg di ma wax ma maman kaay raxas ma ma ñëw yor sa sataleet di ko raxas mais ngay gis dem gannaaw kër gi di yokk di yokk ba pot bi fees bay tuuru